benn famille ngoog boo xam ne juróomi nit lañ baay ak yaay ak seen ñaari doom yu ndaw ak maamu gone ya famille bi nag dëkkun ca capital ba waaye ña nga dëkk ca wilaas bu sori lool bés ñëw yaayu xale yi tëdd wopp wopp ju xaw a metti lool ba jaaxal baay ji waaye nu góor góorlu rekk ba yóbbu ko hôpital gannaaw ba docteur ya xoolee nee nañ ko kat kii feebar na feebar bu metti fexe ko yóbbu ca capital ba ñu faj ko baay ja delloosiwaat yaay ja waaye ànd ak jaaxle ci la xalaatee ne am na ay xarit ca capital ba naa fa dem lépp leen xaalis ndax ma mën a faj sama soxna si faj gu mucc ay ayib feebar bu metti tax na dëkkandoo yi di seet si soxna si nga xam ni moo wopp bu nu ñëwee nag danañ ko indil ay àddiya waaye di ko ñaanal yàlla naan ko yàlla na la yàlla may wér yàlla na la yàlla saafara yàlla na la yàlla taxawu di tudd yàlla lu bari lépp rek bëgg mu wér bi ñu demee xale yi jaaxle lool daal wax seen maam ni ko waaw maam kan mooy yàlla yàlla moom mooy kan ñi fi ñëw ñi ngi naan yàlla yàlla ku yàlla maam ji ne leen yàlla de mooy sunu borom bi nga xam ne moo nu bind ñun ñépp yàlla mooy ki ñuy sëgal ñun ñépp yàlla mooy ki nga xam ni ku am aajo boo ko ñaanee mu fajal la ko te yàlla ku bëgg ay jaamam la rawatina yéen ñii di ay gone gone ya dégg bu baax li seen maam wax ba ñu xëyee ñu dem école waaye bañ génnee ñu jënd benn enveloppe wut kayit ba ñu delloo kër ga xale bu góor bi nee na ma ngay bind leetar daa di jël kayit wa ni bismillahi rahmaani yow yàlla kaay nga xettalil ñu sunu yaay ji nga xam ni daa wopp ndax sunu baay kat yéex naa ñëw lool te sunu baay nga capital ba ba léegi ak seegul te wopp jaa ngi gën a metti ci sunu yaay sunu maam nee na yow yàlla ku mën a yërëme nga teyit ku bëgg gone yi nga teyit ku mën a nangu ñaan nga kon yow yàlla yaakaar gi nu am ci yow yàlla bu mu naax saay ñu ngi lay xaar nag ca kaw boppu tali ba ngir nga ñëw dimbali sunu yaay yow yàlla ba nu defee loola nag xale bu góor ba bind aw turam bind turu rakkam ca suufu leetar ba daal koy lem def ca ambalog ba ba ñu ko lemee ñu dugal ko ca kees ya nga xam ni waa poste ñoo ko fa teg waaye nag binduñ ca benn adresse ca suba sa waa ji liggéey ngir ramasser lettre yi di ko jox seeni boroom jël lettre ya yóbbu ko ca bureau ba waaye nag ñu gis lettre bi amul benn adresse ah ñu ne nañ ko ubbi xool ban ko ubbee ñu liir ko kaka doon liir nag yaram wa daw lool mu tàmbali di jooy ci noonu directeur ba ñëw ak waa bureau ba di xool lettre bi ba ko directeur liire moom it yaramam daw muy jooy ni ah xale yii day yeyoo nañ dimbal lool yeyoo nañ taxawu lool yeyoo nañ jàppale lool directeur woo waa biro bi yépp ni leen lu waay am nu dimbale gone yi ndax yeyoo nañ ko wóor na ma ni ña ngay xar yàlla ca bopp koñ ba ah ñu góor góorlu ba am ambulance dem ca bopp koñ boobee daal di seen gone ya gone ya seen ambulance bi foog ni yàlla ñëw ak otoom gone ya tëb di dal naan ah yàlla ñëw na waa yàlla ñëw na yàlla ñëw na gone yi ñoom foog nañ ne yàlla ci boppam moo indi ambulance ngir dimbali seen yaay ñu kontaan lool waaye directeur bi ak chauffeur bi ñu ngi jooy waaye yëram xale yi lool nu àgg kër ga nag fexe ba gis yaay ji jël ko taxawu ko ba dugal ko ci ambulance bi yóbbu ko hôpital ci jàmm xale yi nag delluwaat ci seen maam ne ko maam ana sun baay maam ji ne leen baay daa dem ci ay mbokkam ngir ñaani xaalis mu yeex lool yéen nag ngeen dem ci yàlla sunu borom mi nu moom mu gaaw lool kon lu ngeen di wutati na ngeen ko wutee ci yàlla mi nga xam ne moonu moom ñun ñépp tey nangu ñaan kon nag mbokki jullit yi nu déggee ko noonu léegoo léeg nit dana jaaxle lool daw ci mbokkam ngir mu dimbali ko a baax na am na solo waaye nag bu nu fàtte mukk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala ndax yàlla moo waxal boppam ni képp ku ma ñaan danaa ko nangul kon boog mbokki jullit yi bu nuy ñuy ne mukk di ñaan sunu borom tabaraka wa